fës nañ lool tey jii ci xolu mbedd ficelle yi bokku ci commune ñu ragné lol ci département bu Mbour xew-xew bi nak du lenn lu dul ab randonnée bu ñu fi woté kiko amal di directrice de centre de formation bu nekk fi ci commune bi club de randonnée jàmb ci xol bu Fadia ak environ ànd ci ak ñom bu baax tay fessel seen kóllëre muy lo xamné autorité yu nekk ci gox bi nak rafet lu nañ ko bu baax raw ci doli sous préfet bi fi féetewoo. waaw tay dañ fi ñëwoon pour def randonnée pédestre randonnée bi nak ñi ko initié mooy centre Fissel centre de formation Fissel ki ko jiite madame Sène directrice ñu sant ko gërëm ko ci initiative bi mu am parce que au delà de ñu def sport tag suñu yaram. dafa am leneen lu mu ci jublu mooy aussi ñu wax ci mbiru santé rawatina feebar yi nga xam ne gis nañ ne ci zone bi bëri na fi lool kon war nañ koo waxtaanee nit ñi gën koo xam bokk na ci feebar yooyu lu mel ne diabète lu mel ne cancer lu mel ne tension mais aussi ñu waxtaanee ci wàllu euh, euh, cancer col de l'utérus nga xam ne jigéen ñi lay lay dal. loolu ñu sant ko gërëm ko ci ñuy rafetlu aussi teewaayu maire mais teewaayu partenaires yi nga xam ne ñëw nañu parce que moom am na chance mobiliser. vraiment ñu bëri ñoo xamné ne feneen lañ jógee waa muy waa club randonnée ñu ñëw ñu féliciter aussi madame la directrice de la direction du centre de la direction formation professionnelle et technique mu joggé Dakar ñëw ñu féliciter aussi madame le maire de la commune de Ndiaganiao mu bokkoon ci marraine yi monsieur le maire de Fessel teewal ko fi. donté sax nekkul ni ñëpp ñëw wuyu si ci bile randonnée mel na ni ñi fi fasal seen kóllëre bari na lool directrice de formation bile diko ko rafetlu. waaw li ñu doon xaar mooy la mobilisation te bu mobilisation donc euh, nit ñi dinañu dégg te peut-être dinañu transmettre le message à la population au fin fond de de de les 28 villages de ficelles et là je pense que l'objectif a été atteint. Il y avait deux clubs mais bon ben bi moo mujj club euh, de randonnée Diam si xol et environ ñoom vraiment ñëw nañu. indi nañu seen loxo jaxasoo nañu ñun dem ci ci ci ci marche bi te ñu ngi leen di gërëm encore di leen sant ñoom tamit jàmm ci xol. bokk na tamit ci seen yéene mu di gën a fësal centre de formation bile nekk ci gox bi ndax mel na ni amal na njëriñ ndaw Fissel bi yépp nga xam ne dañuy faral di jàfanteel ay jafe-jafe. Sénégal gi ñu nekk euh, enseignement bi ñuy joxe dañ ko war a xoolaat monsieur le maire. vous êtes enseignant je parle sous votre contrôle enseignement général bi defaratul yi problème du chômage il faut que l'employabilité soit yi rek mérite la compétence générale la donc compétence générale c'est li ci gën am chaque fois bu ñu sommes ñu nous sommes à ses côtés Le plan xam aussi yor nañ côté financier côté matériel ñu ñëw jox ko ko jàppale ko parce que lépp lu mu fi def pour ñun la koy def suñuy doom la koy def. te ji nag ñi ngi gën a fësal centre tey fas yéene taxawu ndaw yi. xamal dëkk bi que ni centre am na fi centre de formation professionnelle muy jàng ci enseignement général di jàng ci formation professionnelle ñaar yëpp dafay aboutir xëy na ci liggéey mais boo seetee ci cappaandaw bi képp kuy def enseignement général boo mujj mujj mujj formation professionnelle ngay mujj pour mun a am liggéey donc je pense que atu la. boo xam ni buñ ko ci jàng boo génnee di nga am sa métier te gis nañu ñu bëri suñu anciens élèves yi ñii la bunt yi dafay ubbeeku ci armée ci gendarmerie ci yeneen ak yeneen. tey jii dañu ne Sénégal benn bopp la Sénégal ki nekk Fongolimbi ak ki nekk dakaar ñoo war a mu yem ci maanaam wërsëg bi ñuy séddatle moo tax centre bi tey euh, ñun 15 ans ci ginnaaw wala 20 ans mosuñu ko xalaat ne village dina dem. Euh, commune fiscale dina dem ba am centre de formation professionnelle boo xam ne yi bo xolé dañ doon génn di dem di di di wuti xam-xam tay jii indi len ko sen à deux pas de chez eux loolu lu ama am solo motax tax waajur yi nañu école bi ak seen fukki loxo. ñun liñu gis madame directrice euh, comprendre na loolu moy né Euh, waxtaan ak nit ñi jël jox jël li nga xam ne centre bi moo fi nekk li am ci centre bi ñu wax ko nit ñu xam ko maanaam information bi parce que dañuy gis lu bëri nit ñi du ñu xam centre bi yan branche lay liggéey lan nga fi mun a tàggatee xale xëy na nit ñi xamuñu loolu wala nit ñi dañuy jàpp ne jàngkat ci enseignement général kese la mais léegi-léegi jamono bi ñu nekk ñu gis nañ ne enseignement professionnel ak technique

li ci gën a bari li ngay soxla doo ko jot mais ñun dañoo jàpp ne moom lu mu bëggoon ci centre bi mooy nit ñi xam centre bi lii mooy njëriñam ñu jéem koo def seen moomeel bu ñu weesoo foofu noonu si amoon na thème boo xam ne sur la santé la les maladies chroniques kon objectif bu mu amoon jàpp nañ ne bu dee cent bu dul cent pour cent tam mën nañ ne ak quatre-vingt pour cent jot nañ résultat bi nga xam ne moom lañ ci loon xaar te li ci am solo mooy commencé nañu te incha allah dañ koy gunge pour chaque année mu am wala chaque six mois mu am. parce que def nañ ci sport xam nañ ci euh, yan ñoy jafé jafé yi nga xamné aussi ñom lañu gëna rencontrer surtout en milieu rural du côté sanitaire kon vraiment japp nañ ne résultat bi ñu doon xaar dal man ci sama bop de doy ma may nak 80 80% lilé nak pour fas yéene wuñ ko yamalé fi rek askanu Fissel bi nak bëgg nañu amal li ni mel sa suné ñom nak seen mbëbët du lenn lu dul fexé nuñ fi amé ben club de randonnée bo xamné dina mën a tàggat ndaw yi bu baax tey di leen yee ci lu bari